thank you ma def waaw dem naa ah. et taxawal taxawal taxawal sama kër turandoo la yaa ngi dégg baax li ma la wax tu vas faire li ma bëgg munoo. te munoo maa may sama jàmm. ngay turandoo turandoo xanaa du sa bàjjen sama bàjjen. déedéet yow sa bës dee na. di sa sa bës dee na et et taxawal. maa ngi fi li ngay def balaa nga may daaneel. sa bës dee na. waaw sa bës dee na doxal soo koy bëgg a dee toog toog ko kaaw. turandoo dee na. salaamaaleykum maaleykum salaam. bàjjen sama doomi jigéen yaa ngi nii. sama doomi jigéen dama naa leen. di leen bëgg rek di leen bëgg oo cim. caat bul mer de bul mer caat bambero non non non bambero caat. meruma de garaaw toog toog toog naaw yaa ngi caat bambero. non meruma sax def benn jël ko rek jël rek jël naa turandoo gi. gisoo sa turandoo waaye jël naa jël naa. lay ñaaw naa ma turandoo gi ay jaw tim maay sa bàjjen nag. maay man mii bala mañ sa maay sa bàjjen xoolal bul am dara looy na ay yow tim la. dama dama nuyu naa ko ba foofa rek da ngay xool tey xool ma. mooy car sa robe dafa sa rob rafet na de a cat lëf cat sa noir baax na de ah, ah nii laa bëgg ci xale xale day feres lii ngeen def nii laa bëgg xale de feres ki moom dafa maa noo turandoom macha allah gis man lii daf may rey ci xale yaay day laa waaye cat cat it bawoo de cat ah, noonu bawoo koog moom ba koog moom ah. lii laa bëgg lii laa bëgg xale ba ko gisee da ngay day feres lii laa bëgg waaw lii laa bëgg paa bi ne da ngay dee bàjjen ah ay waay cat yow kaa waxati nga de bàyyi foo dem nekkali ko ay bàyyi dem dugg ci frigo ba. moom nag naka jëkk dem dafa neex moom moom gis ko rek moom doy na ko. benn boobu kese la taal ji taal frigo ba mu congelé. dina congelé tey. waaye yow gii dee ko miti moom moom lu ko fi jar. nga yokk de bàjjen. ah yow xam naa da ciy maye nag man xam naa ci. doo day maye day maye. ay mbiram dafa neex waaye lépp jàmm rek. si jàmm a na man boo amee jàmm rek am naa jàmm. jàmm de lu la xañ jàmm de xañ na ma jàmm. moom dafa na a li jaat naka jëkk nii la waa taw. lu jaamu. fan la. sunu yaay. waaw. bàjjenu sunu yaay xamee tuñ ko dara dara dara dara dara. lu waral loolu. ah bàyyi. ay eh, ndax moom. na dëgg moom bàjjen ndax loolu sax tey moo ñu yëkkati mhm. ko benn yoon. dafa changé changement boo xamante ne si ñun sax maanaam mënuñu koo kii moo tax ñu ñëw fii ci yow pour waxtaan. dëgg la wax nga dëgg. ndax tey bitig yi nga demoon yi mu amoon sax. daan xëy di fa dem sax léegi dematu fa hmm? ndax ñun xamatuñu ba xam bitig yaa ngi dox wala doxatu kër ga njëkkoon a dëkk paa bi def na lu tuub bañ génne ko foofu noonu rafetul ñu demaat suñu nijaay fat ni paa bi di xeexaat ak suñu nijaay suñu nijaay génn waat fi ne nii kër gi ñu nekk xamuñu kër sama yaay la xamuñu kan moom kër gi ñu doon ci waxtaan nag ma ne ko comme que ñun dañu am ay kilifa hmm. nañ dem suñu bàjjen waxtaan ak moom peut-être moom mën ñu cee génn sama xol naqari dellu si nga ma taaw sama xol na xam nga lu tax mu seen yaay bi muy dugg ci kii dama ne ko dugg ci waa ji dama ko ne jàkk ma xool waa ji ay démarches sam neexuma laa ni ko bu ci dugg boobu rëy boo yemoon ci boobu rëy bi rek sant yàlla li mu ne bukk ay bëte moo ma neexul xoolam neexuma seen yaay jël ko rek def ko fii waaye seen yaay nag bi mu duggee ci kii la yàqule waaye nag lu loo ko def loo ko mën na ko dindi maa bokk ak seen bàyyi ndey ak bàyyi tey alal ji seen bàyyi bàyyi woon yëpp nee na ko fu ngaa ñu lekk nag ndax ba muy dugg seen yaay naa ni lii la bëgg lekk la ma yor di dem ba génn leen bu yaas waaye nag bu ma jógee ci yéen ba dem ci paa ba may dem ba ñëw bu soobee yàlla lu leen neex ngeen di def di ngeen passé wu ci kawam de. Ah, pour yéen rek xoolal taa bul am lu la naqari yow sa baay day sama xarit nga nduróog man bul am lu la naqari caata ngi di sama caat dee ko jooy. boo jooy damay fàttaliku taaw bu jooy soo jooy rek may fàttali lu bari déedéet bul jooy bul jooy bu jooy. bul jooy boo jooy rek may fàttali lu bari bu jooy yow bul jooy caat amul benn problème ah, su ma jógee fii ba dem ci ka may dem ba ñëw bu ci yàlla rek àndee la yàlla may woon bu deñul di ngeen dellu seen place seen yaay da demanteeg yéen nii moom nag na jëm fa mu neex fa mu ko xam rek na ko jëm ndax nag def woon lu lekk seen alal yi nday jooju loolu la seen yaay xolam dara new ci xolam dara bu kii dugg woon ci diggante bi dinañ yor taaw bul jooy da gaaw a jooy mën nga nuru ci gaaw a jooy noppi defaral sa bagage xol eh yow tim ay waay te ma ser nag ma yuuxu taaw boo defee damay jooy di taaw yow tim bul def nii di naqari sama xol rek loo gis rek waxal. Hmm. loo gis rek waxal. xam nga no mën a yow yàgg na. Hmm, loo gis rek waxal moo tax maam mu wóolu pour ñëw ci yow. ba ma wax nag moom xam naa loolu. nubbu nubbu amu loo gis waxal. eh na lu lekk foofu. ah sëñ bi mbaa da ngaa gis lu jaaxal. na de kono noonu fii noonu lu yaakaar nit amul. lu yaakaar yàlla amul. Hmm, kii dafa sonal xale yi. eh bu gën a métti boobu. sonal xale yi sonal jàpp na ko noonu. attention tout début. mu liggéey ko na hmm. ah li da ko liggéeyi ay hakku liggéey bi non mm-hmm. liggéey bu bon la no rewal ndax liggéey li nga xam-xam bu weexi am na kono noon bu ñuul bi am na bu bi noonu la defu noonu hmm. eh aja si nga yéekee ay jaaxle naa moo tax ma ñëw si nga yéekee tuuti moo tax ma ñëw loo man ci lu baax defal ma bone wa xale yi delloog seen yaay moom sax am na nu muy demee bu la naree sonn na leen abat ndax lu seen bàyyi waccoon lekk na ko lu seen bàyyi waccoon rek lekk na ko bëgg nag yóbbu seen fitu yaay ji tàggaleek ci doomam moo tax ma daw ñëw loo mën ci loolu defal ma ma daw ci gone ya am na ku dul man ah wala moo jaru bii noonu hmm, yii tax ma ñëw de rek a tax ma ñëw ci yow kon gasi ku jaaxle daw fu nga xam loo ko moom bu defutu hmm, hmm. loo ko mu dindi dëgg la moo tax ma ñëw dëgg la olof bu mu wax ne. Mhm. ku jàpp jiiti. loo mhm. faale jaage. loo ma musax gis naa ko. loolu moo nekkee loo ma musax rek gis naa ko. gasi loo ma musax gis ko loo ma defi gëm naa ko. si nga yeekoon tuuti noonu mhm. tuuti noonu benn ñaari fan tuut. ku ne nga alloo maaye. ay kon fu na koy waxee. dara dee. xale yi seen bàyyi dañu ba ba seen bàyyi ba maan seen yaay ji seen yaay góor gu bon takku ko ne bëgg ko xàjjale ak njabootam duma ko seetaan. naamu duma ko seetaan loolu la ko def na ko jóg lu jógewul ci kii bu mu doon ci sama njaboot loolu laa lay. ñax maa ngi bàyyil noo ñëw nga si man mhm. maanaa yow du tey dëgg la démb la dëgg la sa aajo moo nekkee suma aajo melal na sa aajo bi faju na kontaan naa kontaan naa kontaan eh, ala bu yaakaar dinaa la jokk noonu dara mhm. aja mhm. allah def ko nu ma la ko wax loo ma ma def ko hm? loo ma def ko jaar ah, ma tax a ma def ko koyen faamo ndir may jàmm rek wala ma abal leen na leen may jàmm may jàmm seen yi bàyyi dee ba maag seen doom yi góor gu bon ñëw rek nar leen a tàqali seen yaay. nga bii. Mm-hmm. bii xàqu ne ngi àlla du ku nekke laa ko jox. rawar rawar rawar. bii maa ngi ko jëlee nu garab bi nekk foofu na maa yembe rek. rawar su ma dëkku maam. rawar loo gëm naa ah. si nga ko defee nu ma la ko waxee. Mm-hmm. xàqu ne ngi àlla laa wax. yow jalatu si nga commencé si buntu kër bi. Mm. kaala noonu ba guddi suuf mu sedde wisi ko noonu kër bi noonu ba mu tooy képp noonu xay si ka dolli ko ma dolli dog. la dëgg naa. si nga ko defee. xel mi dal na gis nga ndox mi ni mu tuuru noonu. mu dekke bàkka noonu mu wow noonu. noonu mm. la gàllaaji bi du jeexi ba jeexi tàkk alhamdulilah liy tax ma daw ñëw ci yow. bonu baax alhamdulilah rabbil alamin liy tax ma daw ñëw ci yow. Mm. yàlla bu yaakaar tas. allahumma salli ala mm. daf maa sonal de. allahumma salli sonal seen yaay sonal xale yi rek. allahumma salli ala sonal seen xale sonal caat ak taaw rek. sonal leen rek yóbbu seen fit bi nag. dëgg yàlla bëgg leen a tàqale seen ndey bu seen baay amoon lekk na ko. dafay yomb a am ne baay lii daal la bantu ñetti bantu moo nekkee. dëgg la. bii noonu ñu ngi jógee noonu télimile. dëgg la. si nga demee. benn bu nekkee. benn nga def ko si buntu néegi bi. benn si buntu kër bi. benn si digg kër bi. am benn problème soob yàlla. Adja wallaahi soob yàlla laa koy waxee ni nga ma ko waxee nii noonu laa koy defee ba soob yàlla ndax nag danga maa yàgg a defal. loolu may gis nii nga ma ko waxee. billaay su ma demee noonu laa koy defee. ndax yow dangay sama xarit te bu ma jaaxlee ci yow laa jëm may ma kii amoon lu ma ko la waaye bi yàlla ma génnee jënd mbuus bu ma génnee bu ma génnee jënd buus bu ma la sonal bu ma la sonal bu ma génne jën tegal ci loxo bi da ngay toog ci loxo bi man yow ay yàlla da ngay ndogu ngay jënd ndogu ndogu ngay jënd am eh, ah déet déet déet ndogu ndogu rek ngay a la yàlla jàppale kontaan naa damaa yàgg am say bagage mu may jariñ kon tey boo ma joxaate lii sama njabootu càmmañ lii dina ma neex jërëjëf si soobee yàlla def ko nu ma la ko waxee jërëjëf maa ngi dem def ko nu ma la ko waxee jërëjëf nuyul ma waa kër gi eh? nuyul ma soxna si bu paree sant yàlla ana gi ma ñëpp laay ah maa ngi nuyu xale xam nga léegi dama di mag tànk yee ngi bañ. tànk yee ngi bañ. sant yàlla ngay jóg da ngay am problème. sant yàlla tànk yee ngi bañ.